daje fii euh, ak euh, benn association bu tudd GSMA euh, GSMA nag kuréel la boo xam ne dafa ëmb lu ëpp 750 opérateurs ak ñi nga xam ne ñoom ñooy fabricants yi c'est-à-dire les équipements équipementiers dañu aadawoo di waxtaan ci ëllëgu secteur de télécommunications notamment li nga xam ne dafa concerner la gestion de fréquences ren nag euh, ñu ñëw fii ci Sénégal ñu war a waxtaanee li nga xam ne moom la ñu tuddee euh, naka la ñuy fexe ba ñëpp am connexion euh, ba ñëpp mun a connecté wu mais dans d'excellentes conditions loolu nekk thème bi. loolu nag dafa tombe si ñaari événement yoo xam ne ñu ngi koy dëgmal fii ci réew mi événement bu njëkk bi mooy dañuy séentu. Euh, joxe ay euh, licence 5G ou extension de licence 5G euh, ci fan yu néew normalement vendredi war nañuy jot offre opérateurs yi bu ñu ko càmbaree incha allah avant la fin du mois dinañu mun a attribuer li nga xam ne moom la ñu tuddee les licences 5G au niveau du Sénégal ñaareelu événement bi xam nga 5G nekk na aussi loo xam ne. Euh, ak euh, tey jii utilisation euh, réseaux sociaux yi ak utilisation internet daf koy gën a gaawal bu ñu ko méngalee tuuti ak la technologie de la quatrième génération mun nañu wax ne mun na ko c'est presque multiplié par dix les débits euh, c'est dans l'ordre de un giga euh, bit par seconde maanaam euh, un milliard de bits par seconde loolu gaawaayam yaakaar naa ne foo ko natt ëpp na fa Euh, loolu nag euh, ci jamono bi ñu toll nii euh, soxla nañ ko bu baax a baax ci parce que usage yi xam ngeen ni Covid bi dafa feeñal lu bare bare bare bari feeñal na war nañu mën a def télétravail war nañu def ay vidéoconférence war nañu def ay yeneen ak yeneen te loolu yëpp mënul am te amuñu ay jumtuwaay amuñu ay accès yoo xam ne c'est des accès audi bi loolu moo tax ñu au niveau du Sénégal ñu waajal ko bu baax a baax Euh, concitoyens sénégalais suñu concitoyens yi ñu mun a am li nga xam ne moom la ñeneen ñi am ci réew yu développé yi ñaareelu événement bi nga xam ne euh, ñu ngi koy dégmal mooy euh, lancé woon nañu le compte à rebours li nga xam ne moom la ñu tuddee le free roaming maanaam l'itinérance nationale dafay permettre incha allah parce que le 31 bi ci weer wi nekk ni weeru juillet bi dinañu def les premiers tests parce que moom mooy dernier délai bi nga xam ne moom lañ jox opérateur yi pour que euh, fépp foo dem ci Sénégal bu fekkente ne sa opérateur bi nga xam ne moom nga jël puce am bu fekkee ne nekku fa yeneen opérateur yi mun a euh, jël en charge sa communication euh, émission comme comme réception loolu nag nekk aussi lu am solo parce que ki nga xam ne dafay recevoir appel ki nga xam ne dafay dem ci zone boo xam ne opérateur am nekku fa amul couverture Euh, du ci yëg dara parce que day ñëw rek day mel ni opérateur am a ngi foofu parce que euh, du ci sentir lenn parce que yeneen opérateur yi fa nekk ñoo koy jël en charge comme ni nga demee tey nga dem bitim réew par exemple nga mel ni kuy nga dem Europe euh, tey jii bu la nit woowee dangay ngay jot sa appel foofu bu la neexee aussi bu fekkee ne am nga roaming mun nga jot appel comme mun nga émettre appel loolu nag dafay permettre et pourtant sa opérateur nekkul foofu pour loolu moo tax ñu wax ni. fii ci Sénégal am na ay bërëb yu bëri yoo xam ne opérateur yëpp teewuñu fa euh, comme opérateur yëpp teewuñu fa dina am ay sénégalais yu yore ay puce opérateur boo xam ne day dem ci benn bërëb te opérateur boobu nekku fa dafay tumuranki loolu nag la ñu bëgg dindi euh, fii ci Sénégal euh, am lu mel ni lii anglais di wax one area network maanaam benn réseau ci réew mi foo dem da ngay yaakaar ni sa opérateur mu ngi foofu même bu dee nekku fa da ngay jot appel da ngay recevoir ay appel di nga mën a def li nga xam ne moom mooy sa connexion internet mun nga surfer mun nga def lu la neex mun nga connecté wu doo sentir ni opérateur bi nekku fa donc loolu euh, incha allah le 31 lay effectif donc muy tombe si ñaari événement yoo xam ne yu mag a mag a mag événement euh, yoo xam ne ñu ngi koy dégmal ci réew mi euh, ñaareel bi wala ñetteel bi nga xam ne sujet boo xam ne war nañ ci waxtaanaat fii mooy li nga xam ne moom la ñu euh, tuddee euh, CMR mooy rendez-vous bu mag a mag a mag boo xam ne euh, ñeenti at bu nekk day am bi yoon Dubaï lay amee réew yëpp dañu fay daje pour ñu waxtaan li nga xam ne moom mooy nu ñuy gérer spectre bi spectre bi mooy nu ñuy gérer fréquence yi ma xamal leen lenn parce que les fréquences c'est des ressources rares Euh, il faut que ñu planifier ko ñu organiser ko à même un à l'échelle internationale euh, xam ngeen li xew euh, ci jamono yële ñu génn maanaam dañu jóge woon li nga xam ne moom mooy la la télévision analogique ñu dem ci télévision numérique passage boobu dafa permettre ñu récupérer au niveau de télécommunication li nga xam ne moom mooy les fréquences 700 la bande 700 tey jii la bande 700 moom la ñuy jël jox ko opérateurs yi euh, ci li nga xam ne dans le cadre de la cinquième génération loolu yëpp planification la loolu yëpp prévision la euh, prévision yu mel noonu aussi euh, kuréel boobu dina waxtaanee yan yeneen fréquence la ñuy ubbi pour ñu mun a ñiy fabriquer ñu fabriquer li nga xam ne moom mooy les terminaux en fonction de ces fréquences la pour que ñu mun a yaatal euh, mbir mi ba keroog euh, lépp lu ñu bëgg def ci wàllu euh, communication électronique mu mun a nekk lu yemb fréquence waxtaan boobu ñu war a sumb daf ñuy permettre ñu waxtaan ci future utilisation bande de fréquence yi nga xam ne moom la ñu moom mooy doon éligible pour le la fréquence le le la génération 5 muy 5G ak 6G euh, éventuellement la 7G parce que loolu yëpp euh, c'est dans l'avenir la ñu war a projeté wu pour que euh, ñu mun a waxtaanee loolu loolu nag waxtaan boobu sumb nañ ko déjà à l'échelle du Sénégal mais sumb nañ ko à l'échelle sous-régionale sumb nañ ko à l'échelle continentale pour que bu ñu demee Afrique mun a jël wàllam ci li nga xam ne moom mooy séddale boobu ñuy séddalee pour que ñu Euh, dem sur le même euh, euh, pied sur un pied d'égalité par rapport ak yeneen i administration yi nga xam ne ñoo nekk yeneen i réew yi donc loolu nekk na ay événement yoo xam ne tey jii ñu ngi sant bu baax association bi nga xam ne moom la ñu tuddee GSMA te sunu compatriote jiite Afrique de l'Ouest mu nekk représentant Seyni yi nekk fii ak ki nga xam ne dafa ànd ak moom yore Euh, beneen euh, région euh, loolu yëpp ñu ñëw tey waxtaan ak experts yi préparer une partie rencontre boobu ma wax léegi waaye gën a waxtaan ci l'arrivée de la cinquième génération parce que moom moo nekk d'actualité et yaakaar naa ni rencontre bi ñetti fan yi experts yëpp dinañu daje waxtaan